يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ginnaaw buñ sante suñu boroom tabaraka wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi leen di nuyu di leen jox kenn ku ci nekk seen wàccuwaay di ñaan suñu boroom tabaraka wa taala suñu nuyoo yi yegg si ci yéen ci jàmm ginnaaw bu loolu weesoo tey ñu war a gis benn podcast bu am solo mu nekk sous forme de question te may man huwa allah kii est allah kan mooy suñu boroom tabaraka wa taala ki ñuy wax allah mooy kan donc buñ ko déggee dangay xam importance bi nga xam ne podcast bi moom la nara am ndax képp kenn ci ñun lu dul benn yoon di ñaari yoon dégg nga au moins ñu ne la gëmal yàlla wóolul yàlla bàyyi xel yàlla ragalal yàlla ila axiri yàlla boobu la xam ne dañ koy idaaf à chaque fois mbir yooyu mooy kat wolof bu ne yàlla mun nañ nattale ne mu ngi jóge ci yaa allah yow buur yàlla ñu dem ba naan yàlla kon allah boobu mooy kan tey ci suñu podcast bi incha allah ci loolu lañuy taxaw allahu nag ismu la tur la te tur arab yi dañ koy définir ci ne al ismu ma dalla ala musamma ismu tur mooy li nga xam ne day tegtale ci luñ ko tudde lillahi masalul ala su ma nee isa isa xam nañ ne tur la waaye kenn mënul téye li nga xam ne mooy tur boobu kenn mënul koo téye nii ci loxo c'est abstrait su ma nee Ousmane Ousmane aussi lu abstrait la maanaam tur bi ci boppam tur boobu lu abstrait la su ma pen Penda loolu lu abstrait la nuñ koo téye su ma nee jëmm loolu tamit lu abstrait la mënu mënuñ koo téye su ma sax jox ma portable bi portable boobu ma lu abstrait la iPhone su ma nee jox ma iPhone bi loolu tamit lu abstrait la maanaam am na tur gaa waaye lu abstrait la loo xam ne mënuñ koo téye waaye dafay tegtale ci lenn may ne su ma nee Issa mënumaa téye Issa waaye Issa boobu donte dafa abstrait day tegtale ci benn jëm boo xam ne ne daf may indiquer ne kii nii moom mooy Issa donc loolu moo tax ñuy wax ne ne tur mooy li nga xam ne ne day tegtale ci luñ ko tuddee tur day tegtale ci luñ ko tuddee suñu boroom nag tabaraka wa taala allah ci boppam mooy maa dalla ala zaat mooy allah ci boppam moom day tegtale ci li nga xam ne mooy nekk nekk suñu boroom tabaraka wa taala ndax boo xoolee lu ci mel ne président de la république buñ ko waxee wax son excellence n'est-ce pas wax gardien de sceaux wax père de la nation yooyu yëpp ay tour la waaye day tegtale ci benn jëmm ki nga xam ne moom mooy président de la république fi fi mu fi mu toll nii jamono ji ak kii ñëwi après ak kii ñëwu keneen après wala ñu ñu weesu président de la république du seen tur am nañ tur dëgg n'est-ce pas buñ ne son excellence aussi am nañ am na tur boo xam ne ne tur tur tur tur dëggam donc yooyu yëpp ay titre la allah nag noonu la mel ci zaat bi zaat bi nag moom mooy par exemple su may jël comme exemple euh, mun nañ wax ne ki xam ne moom mooy président suñ jamono ji ci ak pays bu mun munti doon bu ma leen président de la république sa xel ci ku muy dem kooku moo tax ñuy wax donc allah tamit buñ ko waxee day tegtale ci nekk-nekk suñu borom mooy dëgg-dëgg turu suñu borom tabaaraka wa taala bi mu tànnal boppam te tur boobu mooy ismullahil azam mooy tur bi nga xam ne tur baa gën a màgg nga xam dañ koo nëbb daanaka ñëpp donte am na ñenn ñeen ñi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa leen xéewale ci ñu xam turam boobu waaye buñ ne allah day tegtale ci tur boobu mooy ne day tegtale ci net nekk suñu borom tabaraka wa taala donte allah bëri na ay wax yu bëri yoo xam ne ne da cee aju ci fi mu xaree ak fi mu euh, ba xam tur bu ñu bu ñu xar la ci fenn wala tur la boo xam ne kenn xaru ko ci fenn waaye mun nañ wax ne allah dafa nekk tur boo xam ne tur bu yéeme la ndax tur la boo xam ne ne saa yoo ci dindee benn araf day am sens boo xam ne da koy am lillahi masalul ala boo nee allah boo dindeel alif bi dalay jox lil ah, dalay jox lillaahi delluwaat ci yàlla ba tey boo dindee lam bi dalay jox lahu lahu boobu tamit di delluwaat ci yàlla ba tey boo dindee lam bi encore mu dese haa bi haa bi mooy huwa te day delluwaat ci yàlla ba tey kon xaraf yépp day am maanaa boo xam ne daf koy am même booy dindi benn par benn mu nekk tur boo xam ne tur bu yéeme la boo suñu borom tabaaraka wa taala moom rek moo ko tudd moom rek moo tudd moom rek moo ko moo ko jagoo jagleel ko boppam mu nekk tur boo xam ne ne tur bu tur bu yéeme la allah boobu ci boppam tamit mu nekk tur boo xam ne comme ni ko alquran waxe dafa ne xul huwa allahu xul huwa ahad waxal ne allahu moom mooy kenn gi moom kenn la kenn la ci lan kenn la ci nguuram allah boobu kenn la ci nguuram la xam ne ne nguur boo gis bu ne am na commencement am na fin am na ay faay am na yoo xam ne ne ay faiblesse yu ci ne waaye nag suñu boroom tabaraka wa taala wala boo xoolee président yi dañu am ay homologue man président la waaye diw mii tamit président la diw mais tamit président la wala diw mee buur la man tamit buur la yàlla nag nguuram bi amu ci loolu wala nga gis ñu naan vice président wala yooyu suñu boroom nag tabaaraka wa taala nguuram bi amul loolu moom dafa nekk kenn ci nguuram bi nga xam ne amul kenn koo xam ne mën na mel ni moom ni mu mel ci nguuram mu moomee nit ñi ni mu moomee gàncax gi amul kenn ku ni mel waaye tamit kenn la ci ay jëfam suñu borom tabaaraka wa taala kenn la ci ay jëfam ni yàlla di doxalee ni yàlla di jëfee amul kenn ku mën a doxalee noonu amul kenn ku mën a jëfee noonu lillaahi ak masalul ala fi mu ne xam nañ ni suñu boroom tabaaraka wa mooy dundal waaye tamit mooy rey waaye fi mu ne bu reyee kan moo ci mën a kan moo ci mën a porter plainte wala mu mën a critiquer lenn ci jëf suñu borom tabaaraka wa taala ne ku ko def. dina am ay daan yoo xam ne dinañ la ko teg waaye suñu boroom mooy ki nga xam ne ne bu rayee amul lenn lu ciy topp lu dul inna lillahi wa nag am ba des ci yàlla nañ jóge waaye nag ci moom nañuy dellu moom moom moom fii fi loolu nag nañuy wax waaye tamit kenn la ci xam-xamam kenn la ci xam-xamam suñu boroom tabaraka wa taala li mu xamee mbir yi la xam ne da koo peeg amul kenn ku ni ku ni mel ndax nit ki buy peeg mun na peeg ba peeg yenn atome waaye suñu boroom day peeg ba peegaale niñ koy defaree ak lam moo tax ñu defaree ko noonu ak bu doon mel neneen nan lay maanaam Issa Samb bi scientifique yi mun nañ gis ne ne wala Issa Samb nii la mel nangam nangam nangam nangam waaye yàlla moom du ci mel du ci du ci yem day xam li tax composition bi mel noonu ndax moom moo ko bind day dem ba xamaale aussi day xam ba xam naka la Issa di tegee ay tànkam te lam moo tax mu war a teg nii tànkam et bu tegul woon tànkam nii fan la ko war a teg ak naka la ko war a tege ak tamit Issa bu fekkoon melul nii nan la war a mel bu fekkoon ku tubaab tubaab lay nekk nan laa koy bindee suñu boroom day dem ba xamaale loolu yépp ci nit ki donc lu gën a fin ci xam-xam suñu borom tabaaraka wa taala da koo xam donc li mu xamee mbindeef fii li mu xamee mbir yépp lu mu ti doon soit mu nekk loo xam ne ne shahada la loo xam ne lu feeñ la wala loo xam ne lu nëbbatu la wala loo xam ne ne ci suñu xel existé wul mooy adam loo xam ne ne existence amul ci lépp da ko peeg ci xam-xamam donc amul kenn koo xam ne ne mel nga ni moom ci xam-xam comme moom ni mu xamee ndax ci alquran dañuy wax wa fawqa kulli zi ilmin alimin képp koo xam ne ne am nga xam-xam am na koo xam ne ne moo nekk au-dessus de a xam ba des nag suñu borom suñu borom tabaaraka ko taala mooy ki nga xam ne ne moom xam-xamam dafa transcender mboolem mbiri ndax dakoo koo waaye tamit kenn la ci ay sifaatam mooy ci ay meloom suñu borom tabaare ko taala li mu melowoo ay meloom amul kenn koo xam ne ne melowoo ko nga ko noonu ndax dafa wax ci alquran laa ilaha illa huwa lahul asmaahul husna seen borom tabaraka wa taala amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah ku dul moom moom rek nañ war a jaamu ci dëgg jaamu ko di jëriñ ñàkk ko jaamu di lore mooy kooku mooy allah allah boobu nag moom la ñeel mboolem tur yu rafet yi suñu borom tabaaraka wa taala daf koo ñeel mboolem tur yu rafet tur bu mën a am rek te mu rafet suñu borom tabaaraka wa taala moom la gën a ñeel donte nag tur suñu borom yi tabaaraka wa taala dafa bëri kenn mënu ko kenn mënu koo lim waaye dafa am yenn yum ci tànn yoo xam ne daf koo tuddee tur yu rafet nga xam ne da koo jagoo xaas maam ci euh, mu mu jagleel ko boppam tuddee ko al asmaawul xusna mooy ñi nga xam ne yonente ba alayhi salaatu wasalaam moom lay junj ci xadis ba ne inna lillahi tisaata tisaatan wa tisiina isman mu ne suñu borom tabaraka wa taala ñeel na ko quatre-vingt-dix-neuf tur mu laal leeral ne mi atan illa waaxi waaxidan mooy ne cent moins un loolu la fa bëgg wax donc cent moins un bi c'était c'était lu tax mu wax ko mooy pour wax ne ne amul jubluwuma ci lu gën a bëri quatre-vingt-dix-neuf arab yi parfois dañuy wax loolu mooy lii de wax naa la ko cent fois lii de wax naa la ko téeméeri na benn yoon wala ñaari yoon rek nga ko a ko bëgg wax rek moom mooy wax naa la ko lu fii nag muy préciser ne jubluwuma ci ci laa bëgg wax kon am na quatre-vingt-dix-neuf tour man ahsaaha daxalal daxalal janna képp koo xam ne mokkal nga ko di nga dugg di nga dugg aljana quatre-vingt-dix-neuf tour yooyu nag la xam ne ni yu siiw la donte boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci am na tamit ay xadis yu ci dëkk waaye xadis yooyu dafa dafa desee wér ci ni koy tartibe waaye mun nañ jàpp ne allahu tabaraka wa taala mooy allah ci boppam mooy seen sang ñoom ñëpp mooy sang tur yooyu noonu ñoo xam ne moom la ñuy nii te ku ne allah kon dafay ku ne tur tamit da ngay xam ne dafay am ay sifaat dafay am ay melo sifaat yi nag melo suñu boroom yi tabaraka wa taala mun nañ ko tënk ci ñaar mooy sifaatu zaat mooy sifaatu ya ak sifaatu fi'liya mooy sifaat yoo xam ne ne moom mooy ay melo yoo xam ne ne dafa aju dafa am lëkkaloo ak jëm suñu borom bi tabaaraka wa taala nekk-nekk bopp astaghfirullah nekk-nekk suñu borom tabaaraka wa taala pour moytu expression bu jëmm ndax yooyu yeneen débat la ci wàllum bidaa yeeg yu ni mel moo tax ñu wax. ci nekk nekk suñu borom bi tabaraka wa taala bañ a wax jëmmit suñu borom bi tabaraka wa taala donc sifaatu zaat boobu si sifaatu zaat yooyu dañu nekk yoo xam ne dañuy am dañuy am lëkkaloo ak nekk nekk suñu borom bi tabaraka wa taala mooy essence divine bi essence suñu borom tabaraka dañuy am euh, connexion wala dañuy am taali ak ak nekk nekk suñu borom tabaraka wa te yooyu mooy lu ci mel ne xam-xamam suñu borom tabaraka wa taala xal-xamam xam-xamam da fekk mu nekk alim ki nga xam ne ko xam la loolu dafa am rapport nest dafa nekk sifaatu zaati waaye tamit qudratu dafa nekk sifaatu zaati na fekk suñu borom bi dégg ak bi gis loolu tamit dafa nekk loo xam ne sifaatu zaat la boole bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo am loolu dafa nekk sifaatu zaat naka noonu tamit sagesse suñu borom tabaraka wa taala dafa nekk sifaat boo xam sifaatu zaat la al uluwi waaw euh, n'est-ce pas uluwi nga xam ne uluwi suñu borom tabaar mooy màgg ak te kaweek suñu borom tabaraka wa taala tamit loolu sifaatu zaat la naka naka noonu tamit yeneen yeneeni sifaat am na yeneen sifaat yoo xam yoo xam ne nag sifaatul xabariya la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ñu koo xibaar waaye munuñ cee am accès maanaam xamuñ dëgg dëgg dëgg dëgg naka la war a mel mooy comme lu muy tudd ci alxuraan ne waj mooy kanam suñu borom tubaarikam lu ñu wax ne yadayin ñaari loxom n'est-ce pas ay nayin ñaari ñaari gëtam n'est-ce wala ay gëtam donc yooyu la xam ne ne dafa lënt ci xelu nit ñi yooyu dañ koy woy sifaatu xabariya mooy sifaat yoo xam suñu borom tabaaraka da koo joyal noonu ñu ngir ñu xam ko rek ne am na